Gabrielle Kane ngeen di wër maa ko gis sama bëtama may ci fin vidéo bi laa leen di wax fan laa gis Gabrielle Kane est xam ngeen ne Seydina Ousmane Sonko man démb xam ko woon Seydina Ousmane ñu ngi lay ñaan waaye nag dafa am yenn genre endroit yoo xam ne defe naa boo fay dem munoo sol yére wolof mais yére wolof bi moom yaakaar naa ne ñun moom la gën a bëgg moom la ñu gën a adoré ci yow euh, euh, man xool naa vidéo bi xoolaat photo yi pour xàmmee carrément que la euh, macha allah Sénégal dégg naa mën na fee ba a ñibbi nag <laughs> yàlla bu yaakaar tas léegi nag Gabriel Kane ngeen di wër euh, euh, Walf avant may ñoo ci Gabriel kan euh, fayal ñi ngay war a jox avance tabaski jëm leen koo fay parce que Cheikh Niass ba ñuy xeex dañoo xeex ba ci digg bi mu dem kër ma madame fay Sall fa la ndogoo ji woon wor ñu kon am na réeroo am na digg boobu noonu nga naan dama doon xeex dañ doon xeex lu lu ngeen xeex personnel Walf dañuy xeex waaye ki jiite Walf ndéem si yàlla sa moom da doon xeex waaye yow seex Niass sa affaire dara leeru ci Gabriel Kane sa mandat d'arrêt bi maa ko gis siin siin Gabriel Kane mu nga siin bu leen yàkkamti de damay insister foofu bu leen yàkkamti billaahi wallaahi watallaahi réew mi dina baax dina jub de lépp lu waaye defoon di nga rendre justice nekk ci réew mi rek di ko dëbb di ko wol di ko ëf def ko pënd rek mooy naaw yow daal ku la neex gunge ku la neex ànd aji dina ñëw de pour yéen da jàpp ne aji moom mu ngi ci tranquillité mu ngi dund elle fait la belle vie mu ngi piscine party aji dina ñëw de yow Gabriel yow buñ la warul woowuñ la man affaire bi dana ma jaaxal lool yow nag du yow rek de yow ak say téeméeri moroom téeméer nag laa wax xam nga gis naa yaa ngi làqatu ci ginnaaw clavier yéen jàpp ngeen ne bi ñu toll nii affaire de xaw ma féministe li nga doon kaasal ay jigéen déedéet <laughs> Gabi bul ëlbati carte gi bul ëlbati gi ñun ay sénégalais lañ te fi lañu ñu lépp fekk ñun li tax ñu leen di woo benn par benn ñun xam nañ lépp te yéen ñëpp di ngeen ñëw.